noo ngi fii ci biir armée li njaareem eh, daqaar gii na nga xay moo nekk ci sunu ginnaaw muy daqaar gii moo tollanti kàddu jullikaay gee mu jóge jullikaay yëpp sëñ Tuubaa la woon boobu sëñ Tuubaa ñëwagul ba sanc ci kër gu mag bi mu ñëwee ba sanc ko nag foofee mu def ko muy kàddu jullikaay daqaar gi mu def koy ay armée la armel yi moo ko rëddoon ci tànkam biñ koy tabax nag lañ ko yokkaat ba mu yaatu waaye sëñ Tuubaa moo rëddoon armel yi ci tànkam ne sama armel yi moo mooy armel yi Madiinatul Munawwara ñooyam muy armel yu tedd nag daqaar gi nekk ci biir armel yi waaye armel yi bari nag ay jàmbaar yu ci tudd lool ndax naana danaa faral di wax naan armel yi njaarim sëñ Tuubaa da koo ndar maanaam armel yi nu ne sëñ Tuubaa ñu bari seetlu ko waaye armel yi sëñ Tuubaa da nan la ko ndar keppe ki jur taawub sëñ Tuubaa fii la ko sëñ Tuubaa denc ki jur caatum sëñ Tuubaa fii la ko sëñ Tuubaa denc soxna Faati Ja mooy taawub sëñ Tuubaa mboolem sëñ Tuubaa gi soxna Faat Ja moo ci mag jabootug sëñ Tuubaa góor ak jigéen soxna Faati Ja mag armel bu soxna Faati Ja ma nga ne ma jàkkaarloo fee ko denc kon taawub sëñ Tuubaa mi ngi ci armel yi yaayam mi ngi ci yi muy soxna ja Touré soxna ja Touré mooy yaayu soxna Faati Ja fii la ko sëñ Tuubaa denc mu jur taawub sëñ Tuubaa soxna Aminta Kanni Buso mooy yaayi sëñ sëñ Aminta Buso fii la yaayi sëñ Mourtala nekk mi ngi ci biir danaa leen war armelab soxna sa ma nga fee sëñ Madi Lamine Diop Dagana moom bu baax moom moo moo moo nu ko wonoon bis moo ñëw ci sëñ Mor ko soxna si de armelam ba nit ñi dañ koo def aw di ca jaar te xanaa dañ koo soxna fatikat ni yaay sëñ Mourtala moom sëñ Touba sëñ Madi Lamine ñëw ne sëñ Mor dañ koo def aw yoon di jaar ca kaw te mooy wéyjuru sëñ Mourtala moom sëñ Touba kon nit ñi dañ koo xamul sëñ Mor daal nu yabal nu ñëw yandu fi daal di koy tabax tabax bu mel nii mbind ma ci jëkkoon ne moo ba maa bind mu yendu fi suñ mat lemin won nu ko ba tey jii dañ koo karo kon kii jur taawu sëñ tubaa kii jur caatam sëñ tubaa ñu ngi fi waxuma la nag jàmbaar yi nekk ci biir ku mel ne Cheikh Mababou Guèye barabam mi ngi fi ak lu bari ci njabootam ndax ab taawa ma ngi fi sëñ Moussa Guèye yarwaay ak njabootam ku mel ne Serigne Saliou mi yoron jumaay njaareem ji nga xamne buñ bu fi ci lañuy dem di doomi seigne Mor Absalo mi ngi fi tëdd ku melne ne sëñ chiche ala ëllëg ndëri naj lu jaxa sisi momé nga xamne ne borom mbir mu rëy la mi ngi fi tëdd ku melne ne jassi sisi baye seigne sëñ Mor Mbay sisi mi ngi fi tëdd ak seigne Mor ci jëmmam waxon na len nak seigne Tafsir bubu sil la mi ñu fi jëkk a denc ma nga ca penku armée bari na lool ay jàmbaar yu fi nekk mooy barabab soxna ja Touré mooy wéy juru soxna Faati Ja mi taawub Sëriñ Tuuba barab bii nu nekk nii ci biir armée li njaarim fi la Sëriñ Tuuba dencoon soxna ja Touré nga xam ne mooy wéy juru soxna Faati Ja mi taawub Sëriñ Tuuba moo jur taawub Sëriñ Tuuba waa kay fii ba mooy barabu Serigne Saliou Lo mi ma tuddoon di doomi sëñ Mor Absa Lo moo yoroon jumaay njaarim fii mooy barabu Serigne Saliou Lo mooy maam mi sëñ Gala Sëriñ nii ñu àndal waaw mooy barabu Serigne Saliou Lo moom sëñ Mor Absa Lo sëñ Mor Absa Lo bi ñuy liggéey jumaa ji ñuy yoroon matérielu jumaa ji ci la bokkoon mama mo yoron kii bàyyi ma yoroon matériel lu jumaay njëriñ biñ koy liggéey. dañ leen le tudon eh, jambar ñu doon wax sëñ Bassirou Cissé elle ndëri yu ndar-ndar la won waye mu ñew fekk fi Touba jox ko bopam ci ndawam ndar nak ku fa ma sa da nga wara dem soldar, jamono tubaab bi di dem soldar, tubaab bi diko ko diko wër ngir wër ko fess ko fay yéen jëlé mu wax Touba ne ko man di du ma su ma la naree bañ a liggéeyal génn àdduna waaw su ma la naree ñàkk a liggéeyal rek génn àdduna moo ma koy gënal ci bindkat yi sëñ Tuubaa yi la bokkoon toogandoo naag sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ba tey ak ñaar ñii mu dendal sëñ Maxtaar Jaane mi ak ak ak ak sëñ ma Fatim ñoo daan bokk benn jataay am na téere bu sëñ Mat Lamin taalif sëñ ma Lamine ne dañuy bind bes muy taw nawet ba ndox mi bari lol sëñ ma Lamine ne mënatumaa bind sama xel mépp nek ci bammel mané man de yàllante ma xam malaaka yi la ci bammel suma dajé ak ñom tontu la leen wara tontu dal di far def ko aw na layta shihri ma sa yakunu jawabi in atani fi turbati malakani yàllante ma xam malaaka yi la ci ci bammel buma dajé ak ñom lama leen wara tontu bi seigne touba bi seigne ma Lamine bindee lol rek ndaw jóge ci bir taw bi. fa sëñ Touba daal di daal di ñëw ne sëñ Madi Lamin sëñ Touba nee na kenn ñëw wuyu ko sëñ Basiiru Siise mii tëdd fii tey moo teg feggoom wi woon ci kawam daal daw wuuti sëñ Touba ba mu demee sëñ Touba génne xasida mi mu ne leen ko xasida gi ku ko mokkal doo gis ñaari malaaka yi laajte ci bàmmeel kii ci jàmbaari sëñ Touba yi la bokkoon di bindkat mooy secrétaire sëñ Touba ci secrétaire sëñ Touba yi ci la bokkoon minal xaq fii sëñ def si buubu si la man a waxoon te kàddu jullikaay ne la moom la sëñ Tuubaa jëkk a denc fii ci Armenie ne nañ koy yóbbu ca penko mu doon ilimaani ña fa nekk ñëpp kàddu jullikaay googee kii lañ fa jëkk a lañ jëkk a denc ci Armenie njariñ yi mooy sëñ def si buubu si la bu bokk ci magi sëriñ Tuubaa yi yi ko liggéeyal ba am gërëmam doon kilifa bu mag ci la buubu ma ngi ca wetu xombal dëkk moo ko fii la si buubu si la nekk fii nag barab yu bari dafay nekk ay kilifa yu bari ndax sëñ siriloo ma ñuy màggalal ca sànn baraba ma nga ne sëñ siriloo nga xam bu ba sëñ Tuubaa ci géej gi ba wàññi ko la demoon këram barabu sëñ siré nga nekk saa ne dama naan ñoom dañu ngay màggal fa sànn waaye sëñ siré ko sëñ Tuubaa denc bi ila jinaan sëñ Mor Mbaye Cissé mi ma leen waxoon it barab ba ma ngi nii bàyyi mi tam fi la ne moom maam Diassi Cissé mi sëñ Mor daan tudde sama kàng ci mag yi sëñ Touba yi la bokk mooy wéy juru sëñ Mor Mbaye mi ngi fii ak Baye Mor Cissé mi nga xam ne it ba tey moo topp ci euh, moo topp ci maam Diassi Cissé ñoom ñëpp fii lañ nekk waaw li mooy barabu sëñ Mor Mbaye Cissé moom sëñ Touba fi la bàyyam nekk itam ñaari bàyyam ñëpp fi lañ nekk maam Diassi ak sëñ Mor bañ sëñ Mor Cissé sëñ Mor Cissé moom it ci bindikati sëñ Tuubaa yi la bokk muy soxna Fatimatu Jóob soxna Fataa ko Jóob muy wéyjuru sëñ Murtala mi nga xaye mooy caatum sëñ Tuubaa loolu moo tax ma ne armée li njaarim sëñ Tuubaa da ko euh, ndarkeeb wéyjuru ab taawam fi la ko denc wéyjuru am caatam fi la ko denc waxuma ne nag jàmbaar yi nekk ci biir kenn mënu koo lim نفعني ولم يضرني ولا لي عليه عليهم ولا تسيع الأماد والغماد بقى رواسي من السماء علمني بفضله البيت البيضاء في هي المهدية Cheikh babu Gueye mi ma waxoon mi ngi nii Cheikh Mouba Gueye bi ñu njëkk a topp Serigne Touba la jëm du mag la moom moom moom moom moom sa maam Adama Gueye ñu njëkk a jébbalu Serigne Touba ñoo bokk bàyyi seen ñaari bàyyi toppante bokk ndey ak bàyyi ñu njëkk a ànd ak Serigne Touba ci lañ bokk mooy bàyyi bi Serigne Souhaïbou Gueye yar waay ma nga xam ne armée la ma nga ne kon jàmbaare tëdd fii du mag te ci gannaawam sës ci rek sëñ Modou Awa Ndiaye wëlli wu mag bi moo ci sës sëñ Modou Awa Ndiaye wëlli wu mag woo xam ne bii buñ la doon wax ay jaloore mooy borom gëleem ga buñ àggee ci waxtaani njaarim danañ leen leeral kan mooy sëñ Modou Awa Ndiaye donte fàtte naa ko it dañ ma ko laaj sëñ Modou Fall Sadio bi ngi ci ginnaawam ba tey kon fii li fi tëdd ay jàmbaar lañu yoo xam ne kenn mësu koo gis. بحق وجهك وجاه أحمد